si biir nañ dëkk yëpp nag mais xam nga nawet bi ndox bi am na ñoo xam ne mënuñ ñëw et puis dafa yéex a commencé fi ne nii béykat su la xale bi lay omatal sa mbaam wala sa fas doo ko mun a doo ko mun bàyyi foofu euh, di di leen dafa jongal moo tax euh, véritablement tey am nañ nombre bi nga xam ne vraiment mun nañ ne euh, satisfaisant. dañ ko tollanti incha allah chaque année dañ ko def ba ba fii ak ñaar fukki bu ñu def ba vingtième édition dañ ko def incha allah. loolu moom ñaan nañ yàlla def loolu te ana nañ ko def loolu moom commencé nañ ko nañ ko def waaw jàppale nit ñi rek jàppale xam nga Sénégal ñun luñ xam mooy suñu aada mooy euh, xale dafa war a jong <laughs> loolu mooy aada voilà moo tax euh, ñu développe jàppale jàppale xale yaa ngi dégg jooyu xale yi ñu ñu yuuxu noonu mais dafa métti trop nag vraiment ngi daw fi nekk nii sax waaw mais dañ ko def jàppale leen jàppale waajur yi jàppale suñu mag suñuy yaay suñu tante yi ñi nga xam ne ñooy ñooy ñu xale yi ñu jàppale leen pour que wax dëgg yàlla mbir mi mun a yomb fay dara dañ ko def ñun ñoo jël lépp en charge dèjà sax xale bi sax su paree sax dañ ko jox benn euh, paracetamol jox ko banéocin jox ko Bactrim pour que mu mun a kii xam ne xale bi sax si këram la ko papam papam yaayam di fajee du jël sax muy hôpital donc loolu lépp lañ jël en charge maanaam xale bi ba muy jong ba muy wër ñu dañ ko ci jàppale ba mu wër pour le moment on est à 11 ak benn chirurgien indi nañ onze euh, euh, opérateur ñu fi ak benn chirurgien pour xool su fekkee ne xale boo xam ne am na hémophilie wala am na beneen affaire boo xam ne am na ko pour ñu mun a xool naka lañ koy euh, rectifier. waaw bon xaalis bi amul solo ah euh, mais quand lu ñu def nga yéen rek pour ñun du dara mais daal li ñu war a def daal maanaam opérateurs yi ñi koy ñi koy def li ñu war a ñoom def nañ ko ñoom garab yoo la jënd li ñu war a jël yëpp def nañ ko donc euh, xaalis bi moom amul solo même su ay millions aussi ay millions millions aussi ngeen jaral nañu ko. waaw du jaral jox xam nga nit ki moom na ngay defee soo defee peut-être nit ñi gisee na ngay def ñeneen aussi nañ jéem def. donc moo ñun ñuy def rek pour pousser yeneen ñi encore ñu def loolu la rek mais waaw donc duñ leen ko parce que ku ne xam nga ba dëkk ci dëkk juddoo fa màggee fa war nga xam ne dëkk bi am na lu la warloo parce que fii lañ màggee fii lañ juddoo fi lañ yaroo suñ papa juddoo fi suñ yaay juddoo fi donc xam ne dëkk bi am na loo xam ne ñu dañoo warloo ak moom donc soo jigi dëkk nag war nga xam ne lii maa fi dëkk bi doo xaar ñu wax la ko donc moo tax man may def rek waaw effectivement cour de vacances yi moom cours de vacances coranique la euh, dañoo mën a innover parce que en général euh, le plus souvent

mun nañ ne kat ñoom toujours euh, dañoo dañuy bay mais malgré ça ñëw nañ pour xale yi tous les jours. solo parce que am na ñu bëri yoo xam ne jàng alxuraan mais amuñu moyen wala amuñ fu ñu organiser wu pour ñu dem jàng fa parce que euh, su doon am na ay cours de alxuraan ñu mën a wax mais mais amul. donc loolu am na solo ci xale yi day tax euh, vraiment gis naa ne ñëpp engouement bi xale yëpp dina ni dañuy sawar dem sax pour xëy sawar a dem pour dem pour dem jàngi alxuraan am na solo donc moo tax vraiment di gërëm ñoom ustaas yi fi nekk ngeen ñëpp wax euh, dëgg yàlla ci jàppale bi jàppandal bi euh, voilà surtout imam ratib bu Nguéniène bi nga xam ne ci moom la njëkk dem wax ko mu wax joxoon ñu ñi ñu war a seeti yaakaar bi nga defee ba léegi daal alhamdulilah lépp sotti na. waaw su loolu olof mooy wax olof euh, olof mooy faral di wax su fekkee ne xamoo dara ñu ne la lu ñu lay wax soo xamul dara soo xamul lu ñu lay ooyee dañaan jàngoo jàngoo jàngoo yaa ko wax yaa ngi ko jongoo mm-hmm. donc mooy que xamoo dara mm-hmm. moo tax daf ñu def tey xale ñii di jongu fii ñii di jàng fee <laughs>